Euh, loole nag nekk mbir moo xam ne daanaka kenn mënee sukk woon imaginer diggante président de la République Macky Sall ak fi nekkoon njiitu jëwrinam ancien premier ministre di Mahammed Boun Abdallah Dionne loole nag daanaka mën naa wax ne le ton allait grimper ki nga xam ne nag euh, moom dafa wëyoon di nekk rek su lel euh, bi nga xam ne mooy elub kile amoon sax dem ba koy woowee la boss moom nag daal dinay jël li nga xam ne moo di liberté am la nag boo xam ne wala la réunion n'était plus entre nag ki nga xam ne mooy la boss ak son fidèle na looy nag nekkoon diggante ñaari anciens collaborateurs yi xibaaru di ñu xibaar nag li nga xam ne mooy climat tendu bi am diggante njiitu Macky Sall ak Mahammed Boun Abdallah Dionne ci seen rencontre bu ñu mujj am c'était chaud entre de none noonu lañu koy liiree. nee na nag pour ñi nga xam ne dañ doon douter ci lu jëm ci rupture définitive entre Mahammed Boun Abdallah Dionne ak ancien boosam. moom nag nee na euh, ñooñu war nañu déchanté car nag le divorce nekk na loo xam ne jamono jëlee lu total la maanaam sëy ba tas na Macky Sall Mahammed Boun Abdallah Dionne mbokkatuñu ci benn longueur d'onde problème bi nag la ko waral rek mooy soowu Amadou Ba ngir mu nekk candidat wu coalition Benno Bokk Yaakaar jëm ci présidentielle yu 2024 Mahammed Boun Abdallah Dionne gàntal nag ne nag du topp ci tànneefu foog réew mi Macky Sall mi nga xam ne moo doon son boss ndax nag moom jàpp ne ne euh, moom mi lee moo gën a compétitif ki nga xam ne moo di Amadou Ba njiitu réew Macky Sall déclare nag ne mu ngi engagé ay négociations ngir rassembler nag tous les autres candidats ci biir coalition boobee euh, ñu dem nag nekk autour de Amadou Ba nga xam ne moom la ñu tànn Aly Ngouille Ndiaye mi démissionné ci gouvernement bi moom wuy wut ci appelu njiitu réew Macky Sall Mahammed Boun Abdallah Dionne daal di accepter rencontrer son boss ngir nag arrondir les angles waaye nag bu ñu sukkandikoo rek ci xibaaru ak seen source ñu ngi xamante ne que Boun Dionne dafa camper sur sa position maanaam refuser catégoriquement euh, nekk ci gannaaw ki nga xam ne moo di Amadou Ba. source boobu ba tey xibaar du ñu xamal rek ne dafa wane nag le ton est monté d'un cran ki nga xam ne nag mooy le fidèle ak loyal serviteur am bile dañoo refuser cette fois euh, suivre son boss waaye nag la rupture nekk na lu totaan Mohamed Boun Abdallah Dionne kon nag jamono jile génn ci résidence euh, tout en affichant benn respect à son boss moom nag euh, mu ngi wéy di nekk ku fidèle waaye loyal tamit mais lucide donc euh, ni nga xam ne doon ko kenn ci euh, ay entourage am xam ne waaye Mahammed Boun Abdallah Dionne nag décidé na kon ngir 2024 te nag dafa maintenir li nga xam ne moo di candidature am bëggul benn yoon nekk kuy nekk ci tekk tekkaaral ci ay ambition ndax loolu ma war a sax mu refuser lancé wu rangé ci gannaaw ki nga xam ne moo di Amadou Ba ngir nag bañ a subir benn quelconque pression Boun Dionne moom dafa démissionné ci poste président conseil d'administration de la banque d'industrie ak euh, commerce bi nga xam ne moom la ñu ko dénkoon fii ci réewum Sénégal euh, comme nag ni nga xam ne euh, mënoon na ci lancer à fond dans sa campagne ngir mu mën a lancer à fond sax ci campagne am jëmee ci présidentielle du 25 février 2024 ñu dëgmal kon nag di jàpp ne rek moom Mahammed Boun Abdallah Dionne boobee daal de nay gàntal bu baax a baax. Eh, ki nga xam ne moo di njiitu réew Macky Sall eh, ngir nag mën a rangé wu ci gannaaw ki nga xam ne moo di Amadou Ba bi nekk tànneef ak coalition Benno Bokk Yaakaar eh, ci présidentielle yu 25 février 2024 googee moom nag dëggal candidature mu mel ni nag waxtaanam ak njiitu réew Macky Sall daanaka te convaincre sa morom jëfoon na ci lool. jërë jëf mbokk internet nag li moo nekkoon xibaar yi ci biir vidéo jox leen dig daje beneen yoon yeneen xiba ci yeneen vidéo lay doon bu ci àllande laataa loolu wéy leen di like te abonné ci seen ko ñu